dépassé ce niveau-là. Mm. ñu dépassé nañ foofu d'ailleurs il a eu moins d'un pour cent à l'élection présidentielle. Mm. donc il ne peut plus gagner même un bureau à Thiès donc ça c'est ça c'est la déchéance politique. ah Idrissa Seck koo xamoon ci ay temps am foofu taxaw ak kenn. mu demee tey jii ba mënul sax jël deuxième Thiès ah xam nga loolu mooy sa retraite est consacrée mais moom moo xamagul. Mm. peut-être nag a pris conscience maintenant et qu'il va vraiment se retirer et laisser le parti jeunes. réew bi hmm. aux jeunes euh, peut-être nag acte bi mu doon def pour man te muy acte mu doon mu doon doon acte bu am solo mooy mu waat ñi nga xamante ne ñoom la commencé loon liggéey bi mooy ñu Abdourahmane Diouf Thierno hmm. Bocoum hmm. Déthié Fall waat leen ni leen réew mi warul dee man maa ngi dem mais seet leen nu ngeen di waxtaanee seen biir am ku ko ci yéen ñi pour réew mi dundaat loolu doon na doon acte boo xamante ni vraiment am koy posé euh, dina doon act bu bu am solo bu moom seen yoon yi dañoo waroo waaw docteur Abdourahmane Diouf moom ma nga ci coalition waaw mi ngi ci coalition bi waaw ah, Déthié moom dem yoonu boppam Déthié dem na yoonu boppam kii moom en tout état de cause loolu mënoon na ko poser comme acte hmm. en fait pour vraiment redonner au réew mi une une la sa force sa force tonton Khalifa Khalifa Sall aussi euh, li ko menacé dafay menacé Barth aussi ñi xalaat ne bu ñu demee ay législative mën na perte maanaam mais dakaar amul Dakar mais Dakar Dakar moomatuñ ko ah Pape Dakar <laughs> jël jëluñu fi sax troisième di jëluñu fi sax deuxième yan yenn yenn yi gi sax jëluñu fa troisième mais bu fekkoon ñoom am nañ poids Dakar. Hmm. élection bi ñoo fi ñooy ñooy ñooy gagné Dakar. Hmm. yenn ka yenn yenn yenn ñoo koy gagné. dans leur bureau dans leur propre bureau ils ont été battus ils ne représentent rien à Dakar. mais li xew diggante deux mille vingt deux deux mille vingt trois hmm. moo leen moo leen ñàkkloo. deal bi Barth éclaté ni waxtaan naa ak Macky Sall dañuy dem dialogue ba xalifa Sall tamit damay bokk rek moom moom moo ma ñor mottali yéenam loolu moo leen loolu moo leen ñàkkloo. Hmm. ils n'ont pas su vraiment euh, nu mu tuddati saisir cette opportunité là opportunité bi biñ ko waree saisir pour man c'était pas le moment à cet instant d'aller au dialogue. Hmm. avec Macky Sall parce que instant boobu nit ñi jéppi nañu euh, ki nga xamante ni mooy Macky Sall. yow euh, mu jël Ousmane Sonko tëj ci kaso bi jël ñëpp tëj ci kaso bi ñu rey ay nit ñu bari yow nga jël loolu yëpp nga bàyyi bu Ousmane Sonko dugg kaso nga dem euh, pour pour pour pour rek bokk ci ay pour rek bokk ci ay élection mm. wala ñu biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko kiiyee këram noonu nu mu tuddati biñ ko barricade noonu nga xam ne mënatul dara yow nga dem di di di participer ak ay di participer ci ay dialogue mm. pour man Euh, instant boobu la ñu waroon a gëna a euh, sentir mm. seen soutien à Ousmane Sonko te ci peuple bi ci loolu la leen naroon nawe mm. su bu ñu soutenir woon Ousmane Sonko à ce instant boo xamante ni c'était difficile de le soutenir peuple bi ci la leen di jàppee ba faw mais la manière dont ils l'ont lâché dañoo indiwaat li nga xamante ni mooy euh, pratique politique yi nga xamante ni peuple bi moom lañ moom lañu beddi mm. les pratiques politiciennes là nga xamante ni da ngeen di ànd rek ànd intérêt. bu kiiwee nga bàyyi nga dem dem trahir ko dem seet sa sa sa intérêt bopp. Hmm. loolu moo tax peuple bi bedd leen en fait. à cette époque cruciale là où peuple bi dañoo soxla woon euh, nu mu tuddati euh, rassemblement autour d'Ousmane Sonko parce qu'il était seul boobu lañ ko bàyyee dem ci Macky Sall loolu tax loolu tax peuple bi weddi leen ah. Hmm. donc instant bi wedd nañ wedd bi moom c'est c'est devenu c'est devenu c'est devenu matériel euh, nañ ko Dakar massacre moo fi am. Euh, Bassirou Diomaye fay moo nekk ca kaw Amadou Ba topp ci Amadou Ba ni mu ci toppee ci suuf ci suuf ci suuf la nekk après ñeneen ñi ñëw encore en kii. Hmm. en troisième position donc euh, voilà bu ñu organiser waatoon élection fii tey euh, nu mu par exemple Abass Fall di laaj mairie Dakar ak Barthélémy Dias ce serait un massacre. ah oui da koy massacrer. c' est ça la vérité ci demoon suba suba bu ñu ci demoon suba mu massacrer ko c' est amatuñ poids électoral loolu peuple war nañ leen ko. donc c'est euh, ils ne doivent en vouloir qu'à eux waaw hmm. ah ne doivent en vouloir qu'à eux parce que euh, euh, moment bi ñu génnee moo baaxul en fait moment bu Macky Sall dafa jekku Ousmane Sonko jekku jekku na ko barricade kër këram mënatul def dara jël na Pastef euh, cadre yëpp tëj hmm. yaa ngi dégg dissoudre Pastef loolu yëpp mu def ko après nga wëlbati ku bàyyi waa dem ànd ak dem ànd ak dem ànd ak ki ki def loolu yëpp peuple bi ñoom ñu ngi toog di seetaan rek. ah bon lii moo lii kon ñoom ñii ñoom ñii dañu àndewoon ak waa ji ah bon d' accord ngay da ngay bokk ah bon bu mu bokkal amul problème <laughs> mu bokk gars yi jox ko zéro virgule xaw ma <laughs> ñaata pour cent. quatre-vingt-dix pour cent xaw ma deux virgule xaw ma ñaata. <laughs> ah mi ngi noonu de affaire yi politique mi ngi noonu. sénégalais yi peuple bi sénégalais yi suñu dirigeants yi suñu peuple da leen raw en fait. Ah. Mhm. peuple bi dañoo peuple dañoo dañoo mature. Mm. dañoo dépassé fi nga xamante ni dirigeant politique yi fa lañ nekk. dépassé nañ ko bu yàgg. loo def dañ lay xool. Mm. bàyyi la xam nañ fi dëgg bi nekk dañuy dem taxaw ci dëgg bi après bàyyi ba jour élection ñu ñu àtte. ñu àtte alors gis nañ ay regret ñoo xam ne ñu ngi tàmbalee jéego Ousmane Sonko wax ni la doxoon diggante ak Adji Sarr sos waaye dara amu ca. déet waay am na. waaw. ah Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Ah, ah. waaw moom de nee mu ñu jégalu Ousmane Sonko. ah li mu ci doon wax yëpp nee na ay sos la. Euh, dara amu ca mu ne sax léegi ay mbiru boppam daal lay lijjanti. Ah, Pape loolu. ah te fexe na Pape loolu day. Ah, loolu day man su ma sañoon sax ñu jégalu ak Bassirou Diomaye. Eh, man amoon ne frange cette frange là. Hmm. Euh, de ceux qui s'agitaient autour de cette question de Adji Sarr là man su ma sañoon du wax ci ñoom. Hmm. parce que li teg ci réew mi ci métit bari na trop waaw à cause de cette histoire là. lu war ci ñoom. ay nit pour man vraiment. oui ñooñu lu war leen nañ leen nañ. loolu dañ koy bàyyi noonu mu jeex noonu maanaam cette histoire là. non cette histoire là ñi ci muyee ñëpp doon leen ci bu ni euh, ñu waree lijjanti loolu laaj ñu leen. ci am nañ benn degré d' implication. ñi nga xamante ni impliqué nañ. dañ leen yoon yoon daf leen war a yoon daf leen war a poursuivre ceux qui sont impliqués dans ce complot là. yoon daf leen war a poursuivre. parce que tuddoon nañ quand même ay tour si bari na bari na ñu bari. moo tax loolu dafa war a leeraat. xam nga la moo koy leeral nag. ñu buwaat procès bi. waaw procès bi moom kiwul. waaw Ousmane Sonko contumax la. waxoon na ko de. waaw ni bu daanoo rek yëf yi tàmbaliwaat. waaw contumax la de. juge bi wootee procès ci la lépp di leer pour man. bu hmm. juge wootee procès rek lépp leer contumax la donc loolu nañ nañ nañu buwaat nañu buwaat procès bi. Hmm. pour man ñi nga xamante ne nag. ñuy jégalu amoon nañ ci ay responsabilité yëpp wala ñu ci waxoon loo xamante ni wari su ko wax. buñ jégguloo tamit ñeen leen war a baal peut-être ñu baal leen mais man moom je n'ai rien à dire sur sur sur sur eux, vraiment. ñu ngi lay gërëmaat bu baax. maa ngi amaat mbégte bu baax teewatoon fii euh, ñu waxtaanee actualité bi euh, xam naa semaine bi di ñëw nag dana doon semaine bu yëngu. waaw bu yëngu. ndax ci ay ñu choisir ay ministre ak gouvernement ak yooyu noonu. ñooy gis palais bi bëri dana bëri xum dana xumb torop <laughs> journaliste yi dañ dem foofu. ruube foofu. ah wax diw diw diw ñëw na. <laughs> am na benn instant am na benn instant <laughs> bu benn gouvernement bi fu waa doon waa di doon euh, formé benn ministre wàcc fa ci car rapide ñëw. <laughs> c'est te te te gis nga euh. buntu pale dina xumb torop semaine bii di ñëw euh. xaw ma nag ci yan anam lañ nar a defee la composition du gouvernement ndax dañ koy defee de la manière classique comme ni ñu ko doon defee di woo di woo nit ñi di ay téléphone wala dañu sera plus un peu plus discret Euh, on attend la semaine prochaine pour en voir pour en savoir un peu plus mais à mon avis ce sera plus ce sera plus discret que ça. radar yi dañ wër palais. waaw radar yi dinañ wër xam nga dina am ñu am information ah, dina ñu am yi. <laughs> ni diw ak diw ak diw choisir nañ diw diw diw diw diw diw peut-être tax dañ ko génne avant ñu koy ñu koy wax. surtout pour premier surtout pour ministre bi. Ah. mais. Ah, quand même dafa mel ni am na am na am na bu génn. <laughs> boo xamee wax ma. <laughs> bon yow aywa ba yow doo bàyyi li ah, xam nga ni am na ah waa baax na. Ah. Ah. nii rek. am na lu mu war de. waaw baax na d'ici daal xam naa su ma ci amee ay information yu leer. d'ici suba ginnaaw suba wala lundi au plus tard. waaw du ñàkk ma du ñàkk ma ma. mais bien sûr quoi incha allah ñu teel ko may sunu sunu gars yi. ñu am ci ñu idée incha allah. en merci beaucoup Ayoba. Euh, merci à vous ñu lay ñaanal nag euh, euh, pagu jàmm nga def ndànk nag. ci ngalax yi non ngalax yi moom tey moom foog ma kii nag moom <laughs> parce que man ngalax yi moom doon na loo xamante ni vraiment mënu ma koo mënu ma koo mënu ma dem ndànk daal mënu ma ko muñ ma dogoo ba pare vraiment ngalax yi vraiment. Hmm. maa ngi xaar. yaa ngi xaar daal mbooro dèjà xam nga nekk mu mbooro. loolu c'est un problème. <laughs> yi may woo tey suba naan ma sangara yi fan laa koy def man leen dee bu leen ko ñu def ko ci frigo ba te xaar ma foofu maa ngi ñëw du yàqu waaw fii nag Dakar am naa fi tamit ay xarit yu ma war a indil ay ngalax ci ah, mel ni Marie Céleste Diouf maa ngi koy xaar <laughs> Marie Céleste maa ngi xaar sa ngalax danga ma indil ngalax donc c'est ça waaw waaw ngalax bi incha allah en tout cas merci beaucoup grand. merci beaucoup à la euh, prochaine incha allah on va se retrouver en début de semaine bu soobee yàlla suivre bu baax actualité. Hmm. Euh, fort bi nara euh, am te war amee ci ñaari bërëb ca Diamniadio à partir de onze heures na ngeen ko bàyyee xel incha allah dana am cérémonie d'investiture bi. foofee bu ñu fa jógee également li nga xam te ne mooy passation de pouvoir ca palais de la république loolu yëpp incha allah dinañ ci ànd ak yéen ngir ngeen mën a dund ak ñun temps fort yooyu war am am euh, ci réew mi këram bu baax coom laay mi nekkoon ci réalisation bi joxante di daje incha allah suba beneen numéro ci tribune d'actualité ak euh, beneen gan euh, ci sans limite. toog sa ordinateur di tappe di kaj kaj kaj suba ngoon di saaga di xuloo. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kaj